mbokk yi dal leen ak jàmm ci biir limametti point com ñu daal di ñëw ak yéen ci seen revue de presse nekk li nga xam ni moom moo gën a fës uh, ci xibaar yi fi jota a xew li ci gën a fës uh, Barthélémy Dias demoon wuy ji uh, fële ca tribunal de Dakar mercredi bi ñu génn waante laata mu yegg ci lañ ko daal di xamal ni lii di audience bi dañu ko daal di pousse ba le premier décembre ginnaaw ci loolu nag am ay affrontement yoo xam ni amoon na fi nga xam ni moom mooy Ndakaaru ci diggante policiers yi ak ñi nga xam ni ñoom ñooy askan wi ba ci sax ñi nga xam ne ñoom ñoo gunge woon Barthélemy Diaz di ay mbokki politicien am loolu dinañ ko gën a yaatal ci benn revue de l'actualité kii di Bougane Gueye Dany waroon présenté wu ci élection locale yi nga xam ne ci lañ dem en 2022 lii di candidature am dañu ko daal di rejeté waat loolu aussi dinañ ko yaatal ci benn revue de l'actualité docteur Falla Paye ñu mujj def li nga xam ni moom mooy autopsie kooram ak kooru xale yooyu nga xam ne faatoon na seen bakkan di ay doomam loolu aussi dinañ ko yaatal ci ci biir seen revue de l'actualité suñ ci toftalee yeneen xibaar yi nga xam ne xew na fi mu doon seen revue de presse ngeen koy am ci biir seen site d'information limametti point com ñu daal di koy dooree ak Bougane Gueye Dany di président groupe des médias moom nag xam ngeen ni dafa waroon présenté wu ci li nga xam ne ñoom ñooy élection yok élection locale yi ñu jëm en 2022 kii di Bougane Gueye Dany nag listam dañu ko daal di rejeté li waral loolu nag moom mooy dañoo jàpp ni liste bi maanaam matul maanaam liste incomplète moo tax ñu daal di rejeté lii di candidature kii di Bougane Gueye Dany cour d'appel may na ko nag juróom-ñetti fan maanaam huit jours ngir mu complété li nga xam ni moom mooy list yi ngir ñu mën a valider li nga xam ni moom mooy candidature am Barthélémy Dias di maire Mermoz sacré mercredi bii ñu génn demoon na wuy ji fële nga xam ni moom mooy tribunal bu Dakar moom nag laata moo yegg ci lañ ko wax ni convocation bile dañu ko daal di pousse ba le premier décembre ki nga xam ni nag moom mooy candidat Yewwi Askan Wi fii ci Dakar moom daal dinay wax ni dootul wuyu ji fële nga xam ni moom mooy tribunal li waraloon nag ñu woo ko moom mooy procès en appel bu Ndiaga Diouf nga xam ni kii bakkanam ci buntu mairie Mermoz Sacré-Cœur ginnaaw ci loolu nag ba muy ñibbi jot naa jàppantek ñi nga xam ni ñoom ñooy force de di ñi ko gunge woon nag mën nañ ci gis xalifa Sall moom it bokk ci yeewi askan wi Ousmane Sonko moom daal di jiite coalition bi nga xam ni moom mooy coalition yeewi askan wi ak ki nga xam ni moom mooy Malick Gakou ñoom sax nag mujjoon nañ leen jàpp maanaam ñu teg leen loxo ñi nga xam ne ñoom ñooy waa BIP ñoom ñoo defoon li mel la te bi ñu demee euh, ba ci ay euh, simili dañ leen daal di bàyyiwaat ñu daal di ñibbi loolu nag nekk ay tension yoo xam ni xewoon na euh, ci diggante Barthélemy Dias ak ñamu àndal ñu am ko ak ñi nga xam ni ñoom ñooy force de l'ordre yi bis bi nga xam ni convoqué nañ ko fa fële nga xam ni moom mooy tribunal bu Dakar ñu daal di wax ci leen leneen wax ci ki nga xam ni moom mooy docteur Falla Paye chirurgien dentiste bi li ñu ko tudd jamono ji bëri na loola li ko waral nag moom mooy benn jëye ju rëy la daal di def moom nag dafa daal di xaru maanaam faat kanam waaye dafa daal di yóbbaale ñetti ci ay doomam loolu nag nekk lu doy waar ki nga xam ni nag moom mooy docteur Falla Paye bind bataaxal bu dix page boo xam ni mi ngi ci wax lan moo ko daal di poussé ba mu daal di def jëf ju ni ay problème yoo xam ni amoon amoon ko ak soxnaam si nga xam ni moom la nekkaloon sax en instance de divorce soxna soosule ñu xam ni moom moo jur xale yi nga xam ni moom la daal di faap gina faat ginnaaw ci loolu nag ki nga xam ni moom mooy docteur Falla Paye ak doomam yile daal di nañ leen defal lii di autopsie bi ñu leen defalee autopsie li nga xam ni daal di na koy wone moom mooy xale yi dañ leen daal di asphyxier maanaam dañ leen daal di fatt bi ñu leen fàttee ba noppi daal di leen xoj ba ñu daal ñàkk seen bakkan am nañ tamit ay ak gaañu gaañu nag yoo xam ni euh, arme blanche moom moo ko daal di def loolu la autopsie bi euh, daal di wane ki nga xam ni nag moom mooy docteur Falla Paye fekk nañ tamit ci moom ay gaañu gaañu yoo xam ni arme blanche moom moo ko euh, daal di def loolu la autopsie bi daal di wane ki nga xam ni nag moom mooy docteur bile sax daal di nañ koy jébbal boroomam ci jeudi bi loolu nag nekk feeb boo xam ni feebu bu doy waar la xewee fële nga xam ni moom mooy Sacré-Cœur jamono ji nag ñëpp di ko waxtaanee. ñu ñëw ak yéen ci actualité people ñu daal di wax ci mariage mariage nag ki nga xam ni moom mooy Yaxara ñu gën koo xam ci turu Ndeye Marie moom nag joué ci série Karma xam ngeen ni nag xale bu jigéen bi mariage am ak Moussa Versailles sele woon nañ ko jamono yee ñu génn cérémonie bi nag ñu doon ko amal ci ci semaine bi ñu génn mu nekkoon nag cérémonie bu mag seeni moroomu acteur ak ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci monde cinéma bi ñëwoon wuyu si leen ki nga xam ne nag moom mooy Ndiaye Yaxara Gueye mariage am bile def bës bu baax fi nga xam ni moom mooy réseaux sociaux yi photo na ñuy partagé le yile photo ki nga xam ni nag moom mooy Moussa Versailles ñu leen di fàttali moom moo daal di takk kii di Ndeye Marie ñu gën ko xam ci turu Yaxara daal di jeexale sport wax ci match bi nga xam ne moom moo doon opposé démb ñi nga xam ne ñoom ñooy Sénégal ak waa euh, Togo ñii di Sénégal fekk ji woon ñu la nga xam ne moom mooy équipe nationale bu Togo fële ca euh, Lomé ñu doon fa amal match bi match bi nag ndam demul ndam dikkul un but à un la daal di jeexee buteur yi nag nekk ki nga xam ne moom mooy Pape Abdou Cissé nga xam ni moom moo dugal but contre son camp ki nga xam ne nag moom mooy Habib Diallo ñëw daal di égaliser loolu nag nekk éliminatoire mondial 2022 ñii di waa Togo nag dinañ fekk ci équipe bu Sénégal li nga xam ni moom mooy stade la jox le 14 novembre bi nga xam ni ci lañ jëm. voilà mbokk internet yi loolu lañ leen indiloon tey nekkoon seen revue de l'actualité nekkoon li nga xam ni moom moo gënoon fës ci xibaar yi nga xam ni jot na fay xew ñu leen di wax comme toujours ngeen continuer di topp seen site d'information limametti.com ngir benn xibaar bañ leen a di leen jox dig daje beneen yoon ak yeneen information